abonné Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Libération, Barça ou Barça, en tout cas, affaire des trois embarcations de migrants portés disparus sur la route des Canaries, Cafountine, lieu de départ et de drame. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Libération à une, le quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé. Mon confrère, en tout cas, de renseigner les migrants, et eh les migrants sont originaires du Sénégal, des deux Guinées de la Sierra Leone, de la Gambie et entre autres pays de la CDAO. Et eh c'est à haute, intelligible voix David Diatta, maire de Cafoutine, de déclarer l'année dernière en cette période 15 jeunes, migrants retrouvés morts ont été enterrés dans une fosse commune. Kauteuf semble tenter de dire que dire d'autre. Sinon, la posture du docteur Ali Ouba de Greenpeace Afrique qui dit Bill euh, Hi, Wall euh, Hi, Tel euh, Hi, c'est une nouvelle terriblement inquiétante. Et c'est avec beaucoup d'inquiétude que Libération exemple, 650 migrants ont été abandonnés dans le désert, deux corps sans vie retrouvés. Sur la question, il convenait de retrouver critique quotidienne ce matin. le journal, en tout cas, de renseigner embarcation, et eh bien embarcation de migrants en provenance du Sénégal. Greenpeace index directement, directement les politiques publiques, ce que rend public. Tribune quotidienne gravite autour de la sortie au vitriol du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable de la philosophie Gumsabop. Bon, Bougan Tanguy Dadi Koubarki au sujet des 300 Sénégalais, 300 Sénégalais morts dans l'océan, d'interroger pourquoi et eh pourquoi nos frères et sœurs fuient-ils la misère au point de risquer leur vie. Et plus qu'il est dit, rien ne vaut la vie. Retenons en tout cas, eh et d'après Tribune Quotidien, que Sawai, le bulldozer, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez Bougat Gaydani Koubarki, au sujet des Sénégalais morts dans l'océan, à le cœur gros, mais grosso modo, Réumi paru en haute mer d'informer que eh Greenpeace, exprime son indignation totale. La totale dans cette histoire est à lire à la une du quotidien Le Regard, le journal. En tout cas, de retenir et faire retenir une houle, eh d'indignation. En tout cas, dans la houle d'indignation, on peut retenir Ousmane Sonko, comprenez Pros, ou la porte du Bourroc, qui sans contour ni détour déclare ces drames, ces drames à répétition traduisent l'échec, l'échec flagrant, pour ne pas dire Sall. Macky Sall, eh bien Macky Sall qui aura de quoi dire Way En lisant bien entendu le bulldozer du landéro politique sénégalais, Bougan Dadi qui dira dans le regard quotidien, c'est un cri de cœur qui traduit le désespoir, profond de la jeunesse. Malheureusement, Tribune quotidien semble nous renseigner que Ndeketeyo, Ndeketeyo, ceux qui ont en charge le Yokouté font du Yoré En tout cas, le journal du groupe des médias de renseigner la case, eh la case du Et retenons, eh que l'histoire, des candidats à la candidature au sein de Benobok Bakar, au sein de Benobok c'est comme qui dirait une affaire de circulation lampe pour reprendre l'artiste musicien sénégambien Moussangom Akassa. En tout cas, plus de 10 candidats, plus de 10 candidats APR pour remplacer Bakissal. Voilà l'information à retenir et à faire retenir d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, Mbolo Rosalie de Bereboukek Mbam entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo. Touy, que retenir autour de cette histoire de choc fin et règle finale dans la mouvance présidentielle pour remplacer Macky Sall Sinon, les responsables prêts à défier, eh bien à défier frontalement Nyangal National Universel Mondial d'après Tribune quotidienne ce matin. Eh bien ce matin, Réunion quotidienne au sujet de cette histoire de Goloboui Tchepi Tchepi au sein de la mouvance présidentielle. Astafourla, au sujet retenir et faire retenir une information à donner du froid dans le dos. De quoi s'agit-il, Wai Eh bien, candidature de la majorité à la présidentielle, APR. Eh APR, l'embarras de Maki, qu'à cela ne tienne, Vox Populi d'indiquer rencontre, eh bien, rencontre avec les parlementaires de la majorité. Macky Sall, eh bien, veut sécuriser le parrainage optionnel de son candidat et en privé, eh en privé, les candidats dissidents de Bello Bok Bakar, Astafoura, de Bello Bok Yakar, mais le Tas Yakar. Dans cette histoire, d'après Vox Populi, est à retenir et eh à retenir du côté et eh du côté du parti Pastef les patriotes en tout cas poursuivi pour diffamation contre un chef d'État étranger Biram Souley Diop placé sous mandat de dépôt informe Vox Populi le journal en tout cas de renseigner que ses collègues députés de Yewwi Askan eh index le chef de l'État et exige Raking Taf Taf et Jody Jody c'est-à-dire Souket sa libération d'où l'intérêt pour nous de prendre le quotidien Libération le journal en tout cas de révéler après le doyen des juges envoie Biram Souley Diop en prison. le parti Pastef l'est. Au regard du titre de Wolf quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner l'essentiel, eh bien, l'essentiel de ces cadres privés de liberté, Pastef les patriotes, eh bien, Pastef les patriotes, ou la formation politique dirigée par Pros, l'apôtre du Bourroc, en prison. Et c'est en toute liberté, en toute liberté, que l'observateur l'obstitre, Pastef, Sonko, décryptage, eh décryptage de la com d'investiture. Alors, ce qui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

356 32 32 77 356 32 32 wala 77 562 24 24.